ثمانية الأيام جاء على تلك المسافات لم يتهم ولا ينام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الإيجاد والقدم ممدنا بالوجود البدر ذي القدم ثم الصلاة وتسلم يفوق على مشك ورند على ذي الفضل والقدم مع الآل وأصحابي الخيرة الكرماء المؤتم سيرة المختار والقدم مع أرأد الرعد والورقاء تنقب من هدي لخا وجرى دمء من القلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين وكل من استنى بسنته ودعا بدعوته واقتدى به وبهم بشان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي يني سيطان في fii ريمي biir réew في ak bitim réew fii ci Grand TV mbokk yi comme niñ leen sag e, e, e bis bu yàlla sag ci biir weer koor bi émission bi nekk mu ngi tudd majlis ramadan te nekk incha allah war a nekk suñu masna émission bi waaye émission bi incha allah duñ ci wéet danañ ci dalal ay borom xam-xam danañ ci dalal ay tàggkatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokki fa tabarakallah seen émission bangoog muy majlis ramadan émission bi nga xam ne fa tabarakallah képp ku ko suivre di nga am xam-xam ci walu diine ci walu sharia ci walu fiqh ci fànn bu nek en tant que mbiru diine insha allah émission bi fas yene na leen andil ay borom xam-xam yo xamni ne fa tabarakallah sen xel da dafay fa màcc ci xam-xam insha allah rabbi kon mbokk yi fa tabarakallah bala ñuy tàmbalee waxtan bi dañuy ziar ak ndokel mboolem julit yàlla yi fa tabarakallah fu way mun a nekk ñu ngi koy ndokkeel ci weer wi muy shahru ramadan bi nga xam ne fa tabarakallah moom mooy weeru xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa cité ñetti weer rajab shaaban ramadan mu eh, eh, rajab weeru sunu borom la subhanahu wa taala shaaban moom mooy weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye shahr ramadan moom mooy weeru xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nekk maa ngi leen di ndokkeel ci seen weer wi ñaan borom bi subhanahu wa taala niñ ko tàmbalee ci bisimillahi rahman rahim yal na yàlla may kattan ak man-man ak fekke dañu mën ko àggale ak alhamdulillahi alamin te lépp luñ ci jaamu yàlla yal na ko yàlla nangul noonu la ñuy profité di nuyu mboolem muy kilifa diine muy kilifa aada fa tabarakallah waaye ñu jégleel ko kilifa diine fa tabarakallah nuyoo boo xam ne spécial la ñu teg ci loxo suñu wayjur di suñu lépp fa tabarakallah di suñu bàyyi muy Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour ak mboolem rakkam yëpp fa tabarakallah ku mel Serigne Maodo Sy fa tabarakallah sama wasila ak mboolem famille Seydi yëpp ñu ngi leen di ndokkeel ci weer wi waaye ñu dem ba Touba ndokkeel fa tabarakallah ki nga xam ne moom moo nekk ci jalb muy Serigne Muntaxa ak mboolem rakkam yépp noonu lañ koy defee Njaasaan fa tabarakallah dem ba Kaolack Canaba dem ba Laayeen fa tabarakallah nuyu mboolem kilifi diini yépp waaye du ma fàtte borom xam-xam yi nga xam ni leen di tuddee ay ustaaz et léeg-léeg saa gars yi dañ leen di tooñ ñu ne bu ñu xasee dugg weeru koor tabarakallah di ngay gis ustaas yi benn ay la ñuy gën a waaye nag eh, alhamdulillah bu fekkee ni weeru koor bi dañ ko jël jëgle ko ustaas kon mbokk yi sama mbokk ustaas loolu am ngeen eh, eh, weer wu baax wala am ngeen loo xam ne fa tabarakallah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku ci ku ci jàpp nga def ko te yàlla rek a tax yégal ni sa mboolem baakaar yow mu sa am rek tabarakallah dafay effacé wu kon yéen ustaas yi ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ci seen weeri fa tabarakallah mbokk yi fa tabarakallah asana xaalixin xam naa rek e, comme ni ko e, e, ni mu ko waxee te ma dig leen ko ci heure bi nga xam ni moom la ñu bëggoon waaye nag dafa amoon tuuti retard xam nga lu jëm ci wàllu machine moo demee noonu mbokki incha allahu rabbi tey nag moom mooy ubbiti li nga xam ne moom mooy émission bi muy majlisu ramadan incha allah rabbi dinañu andi ay quelque waxtaan su ko defee rek ñu dalal ki nga xam ne fa tabarakallah bu yëkkatee kaddu sa xel dem ci Cheikh El Hadj Abdou Dabakh Malick bu yëkkatee kaddu sa xel dem ci Tiwaawoon kooku mooy Abdoul Aziz Mbaye xam naa incha allah bu ci kaname rek moom la ñuy dalal tey fa tabarakallah ci émission bi luñ ci am rek ñu sante ko borom bi subhanahu wa taala mbokk yi balaa ñu àgg ci loolu nañu def benn taqdim wala benn ard ci fàttali jaamu yàlla yi subhanahu wa taala fàttali jaamu yàlla ci seen borom subhanahu wa taala fàttali jullit yàlla yi leen war ci digganteeg seen borom mbokk yi borom bi subhanahu wa taala dafa bind doomu aadama ci façon boo xam ni façon bi yéema la waaye nee na lima binde doomu aadama du dara lenn rek laa soxla ci nit kooku mooy fu mu nekk rek ak fu munta nekk na ma yëg kon yëg bi ngay yëg borom bi subhanahu wa taala loolu moo la mën a àggale ci xadratul ilahiya borom bi subhanahu wa taala bi mu bindee doomu aadama am leneen lu mu bind te muy malaaka mais dafa jël benn cër boo xam ni daf ko jox doomu aadama mooy suñu maam aadama alayhi salaam borom bi subhanahu wa taala am lu mu sant malaaka yi malaaka yi def ko ci ndigalu borom bi waaye am na beneen mbindeef boo xam ne dafa bañ santaanu borom bi subhanahu wa taala kooku moom mooy iblis mu ni nag keroog bi mu bañee jëfee santaanu borom bi borom bi dafa nangu lépp loo xam ni musoon na ko jox te mbokk yi léeg-léeg faral di wax ni iblis kenn dàqu ko woon jaamu borom bi subhanahu wa taala waaye lenn rek moo tax borom bi nangu la mu jot a am yépp mooy wanewu ak yëkkati su bopp ak rëy te woykat bi nee na laa tatakabbar laa tatajabbar innaka abdun lasta bi cheyin nee na bul rëy rëylu bul wanawu bul ngand ngandalu mu ni yow as jaam nga doo dara te nag nit su la doo dara soo xalaatee sa cosaan di nga xam ni doo dara parce que eh, eh, borom bi moo ni xalal insaani min nutfa min nutfa bu ñu nee nutfa mooy tokk ndox mu ñuy tuddee mani loolu bu takkoon séera tey doo mën a julli wala mu takk sa yaram wala mu génn ci sa yaram fekk sangoo sangaay farata doo mën a jaamu borom bi te encore diggante bi nga nekkee tokk man yu ëllëg nga nekk ak niiw ku la laal bu paree lu may njëkk def mooy raxasu set wicc kon nekk buñ la nee yow doo dara boo xalaatee sa aslu sa cosaan di nga xam ne doo doo dara waaye loolu moom moo dugg iblis di ngand ngandalu te xamul ni rëy mbubb sunu borom subhanahu wa te borom bi nee na képp ku ko sol dinaa la boole yook mbubb mi yépp dugal leen safara mbokk yi iblis alayhi salaam bañ na santaanu borom bi subhanahu wa borom bi laaj ko pour pourquoi lu tax mënoo def li ma la sant te malaaka yi yépp def nañ ko mais iblis dafa ne carrément déedéet mënuma ko borom bi ne lu tax mu ne parce que ki nga xam ne moom nga tëral ni muy aadama moom ci ban nga ko bindee te yow ci ab ak safara nga ma bindee foofu nag la borom xam-xam yi wax ni iblis e, e, e, dafa juum ci wax bi loolu moo tax yàlla nangu la mu jot am parce que diggante leer ak safara dafa wuute parce que boo waxoon ni da bindee ci leer kon boobaa yàlla mën na ko pardonner mais nag wax bi mu wax ne di bind ci safara kon nag moom mu ngi jàppee ni leeraayu safara moo ëpp doole moo ëpp puissance leeraayu li ñu wax am nuur te leer googu moom mooy leeru sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi iblis alayhi salaam bañ na loolu borom bi nekk nekk ko fu fekkee ni yow da ngay bañ sama santaane kon bis ni ki tey génnal ci kuréelu malaayka yi waye mom iblis ko am fulo la parce que dafa taxaw ne borom bi duma dem fek li meuna jotta jot a jaamu joxoo ma ko fayoo ma ko rek e neko génne eh, eh, eh, groupe bi manam ni ko meuna waxe borom bi ne ko wax ma loo bëgg iblis ne ko dal dama bëgg dal nga bayima fi ba bala adunul tukki ki tax nga nangu sama ndomul tank ki dina fexé ba orienter ko yobbu ko guus andak man ba biir safara borom bi ne deet nekul ni jaam yit waaye illa ibadullah muxlisin am ci jaamu yalla nga xamni setanu munu ci ñoom dara iblis mu ngi melni won na gannaaw borom bi sanni ko loxo borom bi ne waaw bax na rek lu mu yag yag yag yag da ngay teer ci sama kanam ma nek ci fofu nek dafa am lu mu bëgg parce que ki tax bind maam adama kenn rekk la te moom mooy rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam si Seydi Xaaji Malik wax ci benn bëy bu am solo nee na wa maa xalaqa arrahman shay'an li nafsihi am ñu wax ni shay'an min nafsihi kon soo waxee shay'an li nafsihi am na lu muy tekki shay'an am na lu muy tekki danaa ci ñëw mu ni yàlla bindul dara siwa seydul mahmudu wa habibu nee na yàlla bind bi mu bind e, e, binde fii dafa am ko tax kan moo tax mooy yonent bi sallallahu alayhi foofu am na nit ñoo xam ni mënuñu dégg wax jooju mu ni bu fekkee ne yonent bi moo tax yàlla bind mbindee fi kon woobaa e, li ñuy wax alkamaal ci borom bi dafay wàññeeku man matu sunu borom dafay wàññeeku dedet parce que wax ji do ko déggé non da ngay ni yàlla lu mu bind rek ci ay mbindeefam dafa am kum ko jegeleel te mom moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lol motax suñu mam si Seydi Malik wax ni wama qalaqa xalaqa arrahman shay'an li nafsihi bahna min nafsihi bahna na li nafsihi moy yàlla bindul bindé mbindeefi mu jëmale ci boppam lu dul ni daa am lu mu ci jublu mooy lan takriman ngir mën a teral rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam soo ne min nafsihi mooy yàlla bindul dara lu jóge ci leeru naasootum lu dul ni daf ko jégle yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon boo demee ci xilaal zahab wax jooju mu ngi fa aha kullu lxijaabin aqaamu albadri fi xujubin yushabbihu fiha xayra muttasimin aha nga delluwaat ci eh, beneen nga ne wa alama allahu haadina nubuwatuhu wa kaana aadama baynal maai wa tiini kon aadama bi muy nekk diggante ban ak ndox ñu war ko jaxase pour ñu mun ko móole keroog la bi sallallahu alayhi wa sallam leer bi nga xam ni moom la ko borom bi jégle leer boobu moom la ñu bind àdduna bi bind bind fii aha kon da ngay dellaat ci ci kaw nga ne wa innahu ish araada allahu nasatana abaana min nuurihi nuura nabil alamin keroog bi borom bi e, e, e, soobee bind bind fii dafa ci leeru naa sootum bind bi yonent bi sallallahu jëlaat léegi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bindi bindee fii moo tax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam borom iblis bañ bi mu bañ su yóotal suñu maam aadama bañal bi yemoo ci maam aadama waaye dafa bañal lër dafa bañ teral ak eh, eh, xormaal ñàkk xormaal leeru yonante bi sallallahu alayhi wa foofu nga koy yóbbu bu fekkee ne aadama ci leeru rasulillah lañ bindee iblis bañ sujudal aadama kon bañeel bi yemul bañeel bi yemul ci aadama rek waaye dafa dem ba ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa loolu nag moo ko yóbbee keroog bi borom bi nar jël jëmm ji parce que leer bi yàgg nañ ko bind nekk ci aalamul arwaax yàlla dugal ko ci ay géej yàlla dugal ko ci ay kiiraay léegi nag bi yàlla nar jël jëmm ji war ko wàcc ci kaw suuf lolu dafa metti iblis ba keroog dafa yo aha wa anna ramma la in al qab qabbu junuduhu wa huwa ridur min sadami wa qala waylukum ya ummati humilat fi hadhihi durratu min asr tuwami aha kon nek bañ bi mu bañ bañal bañ sujootal suñu mam adama mbañeel bo moko top ba keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa wàccee ci kaw suuf moom mu am lu ko metti borom bi nag bi mu bindee mbindee fii yëpp dafa mel ni dafa convoqué mbindee fii yëpp ñoom ñu taxaw ci benn place borom bi ne man yéen ñëpp man maa leen bind te lenn rek moo tax ma bind leen mooy pour ngeen jaamu ma waaye nag doolu mu mun a jaamu jaamu bu wóor bu set bu ànd ak laab lu dul ni ki ma bëgg ngeen bëgg ko moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa loolu moo tax e, benn ustaas bu baax ustaas Pape An tabarakallah di suñu magu magu daara mooy faral di wax ni yàlla kenn rek la faale te mooy yonent bi kon ku bëgg yàlla faale ko na faale rasulillahi boo faalee rasulillahi borom bi faale la loolu nag alquran la borom bi dafa wax ne xul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni ba pare yuhbibkumullah yamu ci wa yagfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim borom bi nee na soo leen bëggee man ma bëgg leen bëggal leen ma sama waaji te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam أبي سمانية بلا تلك المسافات لم يتهاب ولم ينال وفي زك قد خلت من شيء موجدين من ci dugg yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ni lan mooy lan bëgg nga rasulillahi borom bi da lay bëgg ba pare yow tamit nga am yërmaanu sunu borom am njëgalu sunu borom am suturu sunu borom foofu nekk la yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni eh, ñëppay dugg aljanna sëf ku bañ ñu laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ana mooy bañ dugg aljanna mu ne ah kay nit dina taxaw ma koy woo pour mu pour man ak moom ñu ànd dugg aljana mais dafay bañ mu ne nu ñuy bañee mu ne lenn rek la ku ku gëm yàlla topp ma bëgg ma man ak moom tànk tànk mbagg mbagg biir aljanna waaye ku mooy yàlla bañ maa topp faaloowuma kooku moom du dugg aljanna kon leer na loolu moo tax borom bi ne cofeel eh, bi nga cofeel bi ngay yëkkati nga war koo jëmale ci man man borom bi dama bëgg nag am foo ko wéer ba wéeru gi wala wéeraay bi dëgër su dëgëree rek man borom bi man ma jël ko loolu moo tax nit jàngalekat bi ne ku jéggi rasulillahi dem ci borom bi du le recevoir aha kon ne balaa nga mën a àgg ci borom bi fokk nga jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aha loolu moo tax yonent bi daan faral digal saxaaba yi ni dee leen e, e, bari li ngeen di julli ci man e, julli ci man loolu ngeen julli ci man loolu seen ak ngañaay la maanaam loolu seen yiw lay maanaam yiw lay doon ci yéen aha loolu moo tax nag borom bi subhanahu wa taala wax ni qul atiu llah wa atiu rasul fa in tawallaytum fa inna allaha laa yuhibbul kafirin mu ni yow yonent bi waxal say gaay yi nañ ma gëm te topp la bu fekkee ne dañ lay woon gannaaw kon boobaa man lañu woon gannaaw te bu la wonee gannaaw won ma gannaaw ñoom ay yéeféer la doon te borom bi du wax ak yéeféer e benn e bindkat bind benn xasida bu am solo nee na taasi ilaahi wa anta tazamu xubbuhu hada maxaalu fi lxiyaaz badiu law kaanu xubbuka saadixan la ataatuhu innal muhibba liman yuhibbu muti nee na léeg-léeg nit dina mooy borom bi subhanahu wa taala waaye ñàkk gëstu borom bi ñàkk xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko yóbbee mu ne lu tax mu ne bu fekkee ne bëgg bi nga bëgg bi borom bi ak yonent bi sallallahu alayhi sallam bu fekkee ne dafa déglu ci soxol kon jàppal ni et doo roy kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aha kon sa mbëggeel moo lay mën a ci roy yonent bi sallallahu alayhi wa kon mbokki fa tabarakallah loolu nag moom moo nekkoon e, ubbitu waxtaan bi rek kon xam naa tey incha allah e suñu première jotaay bi ki ñuy dalal tey ci majlisu ramadan e muy e taggukatu yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam mun naa wax ni képp ku bokk ci e, e, tarixa tijaaniya nga sawar a tagg yonente bi sallallahu alayhi wa moom ngay roy kooku mooy kan kooku moom mooy woykat bu mag bi kooku mooy kan kooku mooy ki nga xam ne fa tabarakallah gàmm su jotee boo déggee ala azimu leylal wiladati xisbatan ida lam yakun nahwar xaraamu udulu sa xel dafay dem ci zawiya si sida xaaji malik waaye sa xel dem ci zawiya Seydi Aboubacar sa xel dafay dem ci Seex Seydi El Hadji Malick kooku mooy El Hadji Abdou Aziz Mbaye azka salaatu wa taslima ala qamarin min nuurihi naylu ma nilna min anwaari kon mbokki dafa mel ni e, Abdou Aziz Mbaye e, li ñu àndil tey dafa méngoog tem bi min nuurihi naylu ma nilna minal anwaari yàlla dafa bind leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci leeru naashuutum mu jël leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bind mboolem leer yi yépp kon nag amuñu fayam yan yàlla fayal sunan say seyda xaji maalik waaye bu ñu delloo ci ginnaaw dafa ne inna al bashaa'ira maa tubashira hatta anaara nawaxi shaami li tuhami parce que foofu boroom xam-xam yi dañu doon werante e ëmbug amena rasulillahi ci mois yi parce que dafa am ñu wax ni ëmb bi juróom benn weer la diire am ñu wax juróom-ñaari weer am ñu wax juróom-ñetti weer am ñu wax juróom-ñeenti weer waaye suñu ma si Seydi Haaji Maalik fexe na ba kenn ku nekk la mu wax andi na ko mu tënk ko ci tënk ko ci benn bayit wala benn misra parce que dafa ne jabal jaba benn huda ñaar taawan huda daha ñetti adat bu nekk dafa am zamaniya til ayaami jabala tilka Alxaaji na lu muy jëfandikoo wàllu chiffre ci mu transféré ko yóbbu ko lettre parce que boo jëlee alphabet en arabe lu muy nekk ay xuruuf noonu la nekkee ay chiffre boo demee ci daara ja dangay ngay dégg ndongo yi di jàng a ba ja da h wa ba àgg ci sha xa sha mooy tooy bi mu jox la mil boo jëlee aba jëdd ba àgg ci shinshutooy mille mille la lay jox parce que toujours alif un lay signifie ba deux jim trois del quatre he cinq waaw six za sept nga koy toppee nga koy toppee comme que dafa guddi te li ñu dese ci taa bi bëriwul tabarakallah suma safira xaaji malik su soxla chiffre wala at wala date wala bis wala heure du nek fofu di bind zaman wala al am kon da fay jël ben lettre rek andiko lo mata tay sayyid tey Seydi Hadji Abdou Aziz Mbaye génne ci fi nga xamni mom moy mooy juddug yonante bi wala umbuk yonante bi sallallahu alayhi wasallam parce que waxna naa ko sànq dafa bëri werante suñu yayi Amina bi mu ëmbee rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam am na ay kemtaan yi nga xam ni dafa feeñ ci ëmb bi am yenn borom téere yi wax ni ëmb bi six mois la durée mooy jaba parce que jaba jim 3 la ba 2 alif 1 boo boo ne jim am nga 3 boo ci tegee ba 2 nga am cinq nga teg ci alif bi 1 nga am 6 kon am nañu wax ni ëmb bi jaba la am ñu ne déet huda la parce que ha 5 la del 4 cinq plus 4 mu jox la ha 5 del 4 mu jox la ah mu jox la 9 alif ñëw nga dugal ko ci mu jox la 10 am ñu wax ni 10 10 mois la kon ñu wax ni huda ñooñu dañu ni ëmb bi fukki weer la diire am ñu ne déedéet diirul fukki weer. ba wan la mooy ba alif waaw ba deux la alif un la nga am nga ba deux alif un nga am trois waaw six euh, jëlal trois yi nga teg ko ci kaw six yi nga am neuf kon nag ñu wax ni e, e, neuf la suma Seydi Hadji Malick andi na ko dajale ko kon sànnul waxu ñu wax si euh, si euh, la ak ñu wax dix mois la ak ñu wax neuf mois la waaye suñu maam si Seydi Haaji Malik ne soo bëggee xam ëmb Amina rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da ngay jël benn bayit te bayit bu nekk cité na benn turu yonante mooy lan su suñu maam Adama Adama Idris Yuusuf Nooh Muusa Ibrahima Euh, euh, euh, Soayb kon mu nekk set e, yonent yi nga xam ni ñëw nañu e, huitième bi mooy saani sabiqayni ismaila qaala bi za kon yonent yàlla ismaila ñëw na aha yonent yàlla ismaila ñëw na yonent bi yonent suñoon Seydi Haaji Malik dajale yonent yooyu yëpp ñaanal leen mooy ala nabi wa alayhim ajmaina salaam rabbina daiman ama bi sahbihim loolu moo tax su man si sëriñ Malik wax ni e yooyu boo xoolee dañuy wax ci siira bi parce que siira ci yonente bi salaa salaam moo mel noonu soo ne Abdullah mooy bàyyam kenn du weddi amul benn ixtilaaf soo ne Amina mooy yaayam amul ixtilaaf waaye leneen loo wax ci rasulillah am na ku wax contraire waaye nag lu ci mënta xew su ma si Seydi ne ëmb bi daal neuf mois la parce que dafa cité neuf yonante yoo xam ni kenn ku nekk ñëw na ndokkel si yaay Amina ngir lan ëmb bi mu ëmb seen sang te moom mooy rasulillahi yamu ci de am na ay soxna yoo nga xam ni ñëw nañu ndokkel si Amina lu tax parce que Amina moom moo ëmb seen jëkkër wa qad ra'at niswatun ah, eh, eh, eh, xalqulna haashiya wa binti imrana tiikal xurri laa taxin suma sida xaji Malik ne am na ay soxna yu ñëwoon ci suñu yaay Amina mu ne soxna soosu ki nga soxna yooyu ki nga ne moom mooy seen njiit te jiite délégation bi mooy Haashiya bint imran mooy ki nga xam ni moom moo nekkoon soxna firawun diiraa bi firawuna nekk euh, maanaam diiraa bi ñu see daanaka quatre cents ans wala lu ko ëpp firawuna musul jaar ci kawam lu tax parce que yàlla dafa préparé soxna soosu pour mu war a bokk ci euh, soxna yi nga xam ne fa tabaarakallah ñooy nekk soxna yonente bi sallallahu alayhi bi soxna yi ñëwee aasiya moom moo jël parole loo ma tax wa qad ra'at niswatun qad xulna aasiya wa binti imraana tiikal xurri la takini kon aasiya ci la bokk ak ki nga xam ni mooy maryama mi nga xam ne mooy doomu imraan aha wa maryama bnati imraan allati ahsanat farjaha mooy yaayu yeneen tàlli insa lu tax bi programme ko moom mu war a bokk ci soxna yeneen yi ëllëg yonent bi ëllëg mu ne parce que gars yi dañ ko tuumal ni dafa am doom yoo xam ni jaarul ci góor yàlla ne bugg tuum euh, euh, dindi tuuma boobu mu waxloo suñu yonent boobu mooy yonent yàlla Isa alayhi salaam comme ni ñuy gëmee yonent bi noonu la ko doon gëmee parce que amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal muminun kullun amana billah wa malaikatu wa kutubi rusuli ni ngay gëmee ni bi yàlla mook ko noonu nga war a gëmee mboolem yonenti xatta yonent yàlla Isa alayhi salaam loolu moo tax suma Seydi Haaji Malik ne guddi googu nekk suñu yaay Amina gis na ay jigéen ki yoroon seen parol moom mooy Asiya di présenté e, e, e, di présenté soxna yooyu seenu goro lu tax parce que Amina moom moo ëmb seen jëkkër te moom mooy rasulillahi suma Seydi Haaji Malik ne innal bashaira ma zalat tubashshiraha hatta amara rawahisha bi dukhumi ma ne ñii di bëggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu ñii bëggal yonent bi ba pale yi nga xam ne ñoo nekk Sham ak Kishra ñu sentir ni ki ñuy bëggal ci guddi gi te moom mooy rasulillah bis ni ki tey su ñëwee ci àdduna dina màbb mboolem pale yi yépp bépp buur buy woote ak nguur la keroog sa nguur te euh, lay jubóo lay lay lay daanu loolu moo tax e, e, bi mu juddoo فاقدرت الأرض والأشجار قد قبلت فسمي الآم آم الفتح ورفني أها سوى سيد حاج مالك ني سرين كل مليك شار منتكسا بلا خلاف ورب الكعبة الخرج أها كن جدك يا نبي صلى الله عليه وسلم لا pale kisra yi màbb ngir lan njàkkare bi ñu am keroog la ñu xam ni buur yi daan fanaan ci seen biir moom pale yi keroog la xam loo xam ni buur yooyu duñu ay buur kon buuru buur yi tey moom moo judd te moom moo rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la Seydi Xaaji Malik e, nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam e, judduwul guddi juddul ci bëccëg ñu ne lu tax mu ne parce que dañuy bañ guddi ak bëccëg ñu noonoo parce que bu fekkee dafa judd guddi bu boobaa guddi mun na wax bëccëg ni man maa la gën wala mu juddi ci bëccëg bi bëccëg bi nag di tiituru ci kaw guddi ne guddi maa la gën yàlla bañ loolu am nekk mu xaar ba fii guddi gi war a jeexee bëccëg bi war a dugg exact juste fa la yonente bi sallallahu alayhi wa juddu am na benn bidéew bu ñu wax mustaritaxna bidéew boobu nag fajar buy xar rek te lay génn keroog bidéew boobu bu muy génn nag dafa fekk yonente bi sallallahu alayhi wa di gane sa àdduna loo ma tax su ma Xaaji Maalik ne tuluuhu wa tuluul mustaritaxna ah kon juddug yonente bi ak fenkuk biddiwu mustari tax na ñoo ànd bekk bokk même heure même bis kon nag da ngay ni yonent bi juddul ci guddi juddul bëccëg kon xam nga looy wax da nga matt bi mu ngi commencé ci bëccëg bi guddi gi waaye nag juddug yonent bi wa tatmiinuhu fil fajiri aha wa tatmiinuhu fil fajiri kon nag mbokk lii la suñu gandi tay andi te moy abdul Aziz mbay ñu ñaanal ko borom subhanahu wa taala yal yàlla yok fanam ci daraaje yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla jappal ku baakha baakha ba ak équipe bi nga xam fa tabarakallah nga àndal fu mu yëkëté rek xali dem ci rasulillah xam nga damay faral di wax ni suñu bëggee xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam nañu dem ci xilaasu zahab waaye buñu bëggee xam xilaasu zahab deug deug deug nañu déglu Cheikh El Hadj Abdou Dabba euh, euh, ci firi mu daan firi waaye ànd ak ci Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Mbaye parce que Dabba euh, maam Dabba mbooleem air yi nga xam ni dañ koy woyee ci airu xilaasu zahab moom moo ko génnee ci jamonoy sëñ Babacar parce que moom moo ko doon woyal léegi ne mu jël loolu nag nandal ko Abdoul Aziz Mbaye loolu moo tax fu mu yëkkatee rek sa xel dem ci Dabba kon mbokk yi fa tabarakallah sana xaalixiin dafa mel ni nit ñu mayoon ci heure jeex na te gàmmu gi jeexagul fa tabarakallah sana xaalixiin xam naa rek dañuy xaw a taxawandi rek incha allah ba subag jàmm e, e, comme ko waxee woon ci commencement bi dina ay tàggkat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy invité ci plateau bi ak borom xam-xam yi incha allah parce que dañuy ne majlisu ramadan jotaayu Ramadan nekk dafa war a nekk jotaay bu riis loolu moo tax tey ñu dalal ki nga xam ne fa tabarakallah muy seel xaaji Abdou Dabaax euh, wala seel xaaji Abdou Zimbaay fa tabarakallah ànd ak ci ñoom daaw góor ñoom Serif Mbaay fa tabarakallah ñoom Moustapha ñoom ñëpp fa tabarakallah kon ci eh, tënk rek ci famille Moussa Ali Mbaay ñoom ñëpp fa tabarakallah kon yàlla yàlla sàmm leen bu baax a baax kon mbokk eh, ñu ngi bëgg yëkkati jotaay bi xanaa dañuy delluwaat incha allah di ndokkalaat jullit yàlla yi yëpp tabaarakallah sana xaalixiin kon mbokki seen émission baa ngoog muy majlisu ramadan incha allah rabbi e, ñu ngi ñaan e, mbokki fa tabaarakallah képp kuy dégg suñu kàddu wala muy e, seetaan suñu émission bi tabaarakallah bu leen di bàyyi ngeen bàyyi xel bu baax jotaay bi fa tabaarakallah te ngeen dugg ci facebook bi di ma Buzz Zen bi fa tabarakallah loolu moom mooy tax ngeen am e émission yi nga xam ni dafay jaar ci Grand TV kon mbokki fa tabarakallah asana xaalixiin ñu ngi santaat di gërëmaat bu baax e équipe yi nga xam ni ñoom la àndal fa tabarakallah wax ji su neexee image yi leer ñooma e tey moom directeur bi moo fi nekk tey xalifi imam Ababacar Babou fa tabarakallah ànd ak ci sama waa ji nga xam ne daf ma bàyyoon waaye tey moom ñëw na mu sëriñ laay ñu ngi koy ziar bu baax di ko ndokkeel fa tabarakallah ñaanal ko borom bi yaan yàlla sàmm ko bu baax a baax waaye di nuyu mboolem personnel liggéey fii mel ni tabarakallah ñoom see xaadim ñoom soxna xawa ñoom eh, sidia ñoom ñëpp fa tabarakallah waaye fàttewuma ki nga xam ne moom mooy eh, eh, secrétaire bi fa tabarakallah muy yaay kooña yaa kooña xaw ma tata kooña dañ koy waxee waaw ñu ngi koy ziar bu baax waaye nag e, jàngalekat yi nga xam ne tamit ñoo nekk ci ci e, kër Maxtaar fa tabarakallah ñu leen di jokkal ci yoon yi ku mel ni Seyda Fall fa tabarakallah ak Adja ak yeneen ak Seyda yëpp ñu ngi leen di koor gi tabarakallah ñu leen borom bi yaan yàlla nangul leen waaye du ñu tëj e, te du ñu ñaanal ñi nga xam ne fa tabarakallah lii bu taxawee moom parce que borom bi subhanahu wa taala dafa wax ci alquran ni wal baladu tayibu yakhruju nabaati ismi Ina na sel, su sell nga am jiw ju bax dugal euh, dugal ko ci suuf su baax suuf su su du genné dara ludul gàncax bu nat bu te bu laab yépp suñu wayju di suñu mam tabarakallah babu, mom moko waral kon ñu ngi koy ñaanal borom bi subhanahu wa taala yi ñuy am ci e, liggéey bi yan yàlla e, jottali ci misaanu xasanaat di nuyu ki nga xam ne moom mooy xalifa bi muy sëriñ Mor Baabu ak mboolem famu baab yi yëpp waaye di sant gërëm spécial ki nga xam ni moo ñu fàggul bi muy imaam xalifa Ababacar Baabu noonu la nuyoo tamit mboolem a imme yi waaye rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci e, majlisul alwatani les imams wal ulama fii Sénégal muy national des imams et ulama ci Sénégal tabarakallah du Sénégal et imam Xalifa Ababacar Baabu nekk ci bopp bi ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ci bis bi waaye di leen ñaanal borom bi yaan yàlla sàmm leen bu baax a baax a baax et majmoo bi yéen a xam fu mu bugg ak àgg yan yàlla borom bi àggale ci euh, jërëjëf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jotaay ànd ak ci yeneen ustaaz waaye yeneen taggukat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi ñu ngi yëkkati suñu kàddu bu ñu waxee wax ji jub te e, ànd ak yiw borom bi la waaye bu ñu waxee wax joo xam ne fa tabarakallah e, dafa xaw a safaanoo njub ñu xam ni suñu njumte la te arab dafay faral di wax ni li kulli shay'in zakat wa zakatu lishan alqata loo gis rek am na azaka ne azakay làmmeñ rek mooy njumte fekk yaa ngi wax rek njuumte du wees ci yow kon fa tabarakallah ñu ngi leen di ndokkeel bu baax waaye duma ma tëj de te du ma du ma ziyaara nuyu e, fu ma ko mooy Morolan jël nuyoo bi ak ziyaar bi tekk ci loo xalafi bi muy Seydi Jibril Combaan ak mboolem famille Combaan yëpp waaye maa ngi ñaanal sama yaayu daara soxna Mati Guèye fa tabarakallah ak mboolem njabootu Ustaz Adama Ndiaye rahmatullahi alayhi nuyu waa Morlaay suñu yaay tabarakallah mama Kumba mama big big ak njobot yi nga xamni heure bi su jotee dañuy tal sen télé di setan grave TV ken amul sen fay yan yalla taxaw bu baakha ba kon mbokk yi e, sen xarit la won di sen talibé di sen lepp tabarakallah muy Oustaz Oumar malik in uridu ila al islah ما استطعت وما توفيق إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ثمانيات الآيام جاء تلك المسافات لم يتهم ولم ينام هدي لم يتهى ولم يهى